أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy kullu bidaatin dalala wa qad yasal ahaduhum an sababi hadha altahzir alshadid min albidai wa lilijabati an hadha fa innahu yuqal قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البدعة ضلال tuaddi bi saaxibiha ila annaar fa qaala alayhi salaam kullu bidaatin dalaala suñu xutba mooy lépp lu ñu sos ci diine ak réer la lu ñu sos ci diine mooy loo xam ne bu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu si waatoon ci àdduna mu romb ay jullit ñuy jaamu yàlla moom yonent bi mu ne lii lan la loolu bidaa la maanaam yonent bi lu mu xamul ci islaam rek loolu bidaa la loolu lañu sos ci diine kon loolu bokk ci yonent bi nee na loolu réer la moo tax kenn dina laajte ne tere bu metti bi ana lan moo ko waral lan moo tax yonent bi di ñu moytandikuloo moytandikuloo bu tar ci bidaa nit dina laaj loolu lan moo tax nit ñi di sonn boroom xam-xam yi di wax pour jullit ñi moytandiku bidaa lu ñu sos ci diine mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne bidaa réer la dafa yóbbu ki réer safara moo tax mu ne kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi naar lu ñu sos ci diine réer la te réer safara la jëme nit te jullit war naa moytandiku safara tey nag ci sunu àdduna bi ñuy dund ñun jullit yi diine ji dañ cee sosa sosa sos ba kenn xamatul diine ji lu muy nuur ku yeewu rek daal di indi say xalaat wala say bànneex dugal ku yeewu rek sos mbooloo kenn xamatul diina ji lan la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu dénkaane woon mooy ñaari mbir rek la waxoon ne laa fi bàyyi mu ne taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi bàyyi naa fi loo xam ne su ngeen ci téye sama ginnaaw du ngeen sànku ni ma bàyyee woon saxaaba yi noonu ngeen di mel ba dajeeg man lan tadillu la wax du ngeen réer mukk baadi sama ginnaaw ñu ne ko yaa rasulallah lan la mu ne alquran ak sunna alquran mooy kàddu yàlla sunna mooy waxu yonent feeg ñoo ngi ngoon ngoy ci ñaar yooyu du nu réer ndax alquran du waxu kenn waxu yàlla laa yaatihi albatil min bayni yadayhi wala min xalfi ay caaxaan munu ko dikke ndeyjoor munu ko dikke càmmoñ kenn mënta sos ci alquran naka noonu sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bàyyi na ko fi mu leer nañ waaye tey ci sunu dund bu ñëwee topp ay xar baax topp ay gént topp ay maam topp lu ñu sos baay demba baay moodu baay yero baay maxtaar rek baay maxtaar nee na nangam ku ko def baay sàmba nee na suñu toppee loolu fu mu ñu jëmee mooy alag nu réeral ñu sunu diine sànku ñu soril ñu yàlla soril ñu yonente alayhi salaatu wassalaam mbokki jullit yi li tax yonente di ñu mooy tandikuloo bidaa inna ruju al mubtadi ila sunna asabu min rujui gayrihi gis nga ku nekk ci musique di fo mën ngaa waxtaan ak moom ba mu tuub bàyyi musique kuy naan sàngara man ngaa waxtaan ak moom ba mu tuub ndax moom xam na ne day fo day caaxaan ci fo la nekk même mbërum làmb mën nga koo waxtaan ak moom ba mu bàyyi bëre waaye gis nga bidaa ku ci nekk kenn mënu koo delloosi ndax dafa jàpp ne lii mooy dëkk lii diine la munoo wax ba mu bàyyi ko soo ko waxee mu ne la bàyyi sàmba ci la dee bàyyi moodu ci la nekkoon bàyyi maxtaar lii li mu am yëpp ci la ko am du dellu si caaxaankat yëpp mën nañoo dellu si waaye borom bidaa du dellu si waat loolu tax yonent bi duñu ko moytandikuloo wa zalika li annahu ittaxaza hadha albidaa diinan yataqarrabu biha ila mawla ndax lan dafa jàpp bidaa bi muy def ndox mi muy sotti ci buntu këram gi xoolal Sénégal bañ juddoo ba léegi min bar yëpp ñoo ngi koy wax waaye kenn du ko bàyyi parce que dañoo gëm ne lu baax la xoola àllarbay kare barki démb la woon àllarba bi passé démb la woon alxamis tey la ajjuma xoola àllarbay kare nga gis jullit bu gëm ne tey jii mooy àllarbay kare kenn du sangu kenn du watu kenn du tukki kenn du kenn du kenn du kenn du la ilaha illallah nga gis ay nit gëm ko di ko défendre ñooñu ba yowmal qiyaam duñ ci deñ parce que dañoo gëm ne lii da leen di jaamuloo yàlla fàtte nañu anna al ayaama kulluha lillah la tadur wala tanfa faamal fi kulli yawmin ma siit fàtte nañ ñu bis yi ay jaamu yàlla lañ yàllaa leen sàkk amul bis buy lore amul bis buy jëriñaate su fekkee da nga yaakaar ne am na bis bu baax am na lu bon lu ci xewoon yàlla bi muy alak qawmu aad lan la wax ngelaw la mu ne saxaraha alayhim sabaa layaalin wa samaniyata ayaamin xusuuma fa tara alqawma fiha sar'a ka annahum ajazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya yàlla nee na maa leen alak juróom ñaari guddi sabaa layaalin wa samaniyata ayaamin yu ànd ak seeni bëccëg juróom ñetti fan kon une semaine la yàlla jël ngelaw li teg ko ci kaw nit ñi ku génn rek ngelaw li yóbbu la ba ci kaw asamaan wàcce la rey la su gëleem génnee def ngelaw li def ko noonu lu génn rek ngelaw li dina ko buub yóbbu ko ba ci kaw dóor ko ci suuf mu tasaaroo ba dëkk bi yëpp lépp dee yàlla mu ne xoolal dëkk bi ñëpp a dee ka annahum ajazu naxlin xaawiya lépp a këpp mu ngi mel ne ay garabu tàndarma yoo xam ne ngelaw li dafa dagg bopp yi bàyyi bopp yi taxaw garab yi taxaw bopp yi daanu ci suuf yàlla nee na noonu la leen ngelaw li def loolu ñaata fan juróom-ñetti fan yu ànd ak seen juróom-ñaari guddi la leen yàlla alak kon ban bis la yàlla bàyyi foofu kon ban bis moo ca baax kon bu dee lundi mbugal a ngi ci bu dee mardi mbugal ñëw na ci bu dee mercredi bu dee jeudi bu dee vendredi bu dee samedi bu dee dimanche amul bis boo xam ne mbugal wàcc ci kon lan moo tax rek ñu bëgg a tànn àllarba teg ko de côté ne àllarbay kare di ci wax yu kenn xamut yoo xam ne amul bopp amul geen te li ci ruslu mooy doo dégg ñu ne kenn du ci añ kenn du ci añ doo ko dégg de koo ci indil ginaar day lekk ba suur kenn du ci ndékki abadan kenn du ci dem duus kenn du ci reer yooyu kay kenn du ko wax kenn du ci sangu kenn du tukki kenn du dagg wee kenn du kenn du kenn du kenn du kenn du yàlla ñu yàlla musal mu tax bidaa baaxul ixwatal iman kooku di def bidaa dafa jàpp bidaa daf koy jegeel yàlla du ko bàyyi mukk loolu tax ibnu kasir mu ne am na ci boroom xam-xam yuy wax ne min al ulama bi anna tawbatu mahjuba anhu illa an yuwaffiqahu llah pour mu tuub moom borom bidaa lu difficile lay doon lu dul yàlla dimbali ko ndax buntu tuub yi la ñuy tëj ci moom parce que du deltu ginnaaw dafa jàpp lii ma nekk ba yowmal qiyaamati munoo ma cee génne léeg-léeg ngay wax ak nit mu def bidaa wala mu def bàkkaar ngay wax ak moom mu ne la xoolal saa waay noppalul gis nga man lii ci laay dee laa ilaha illa allah boo ci dee da ngay dem safara boo ci dee safara nga jëm ndax ku dee ci lu dul laa ilaha illa allah muhammad rasulullah kenn mun laa teree lakk loola tax bidaa baaxul ayuha al ahbab wa qad warada baadu al athar an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi zalika wa sahahu ñu ne wal bidau bidaa borom bidaa min ahami asbabi nizaa wa ilqaai al adawata wal bagda bayna ahli al islam bidaa musiba bi gën a rëy bi muy def dafay tax julli ñi di xëccoo ndax ñi dañuy jàpp fii di xëcc ñi jàpp fii di xëcc day tàqale jullit yi moo tax bidaa baaxul seet leen yi xew ci Sénégal nekk ay bidaa demal nga ni kenn ci ñoom kaay ñu waxtaan pour nga bàyyi lii laa ilaha illallah soo moytuwul mu bàyyi la léeg-léeg nga ne benn waay nangam mu ne la ah loolu de bu dee da ngaa bëgg ma bàyyi ko nga ne ko mu ne la ma bàyyi la moo gën ma bàyyi lool ndeysaan te noonu la koy defee soo insister da lay bàyyi di nga gis ku bàyyi ndeyam bàyyi baayam ndax bida bida day tàqale ay jullit bida day indi noonoo diggante jullit yi xoolal tey Sénégal ni ñu noonoowee lu dul lu yàlla ku yàlla gërëm dañuy dañuy daje nii rek di joxante loxo di di masaala waaye xol yi safara moo ci nekk xol yi safaraa ci nekk loolu musiba la bidaa day tàqale ay nit day indi noono diggante waa islaam day soril mbooloo yi day soriloo nit ñi da ngay dajeeg jullit ci biir jàkk seen mbagg yi di laalante mu fasal la ci xolam loo xam ne su espace bi amoon yoon su espace bi amoon pax nga ne ko asalaamualeykum jege sil mu ne këcc mel ni miir wala nga gis ko muy def ci juma julli juma lu jaaduwut ngay wax ak moom mu ne la lii sawaay munoo feexe ba ma bàyyi ko moo tax bidaa baaxul yal nañ ci yàlla yal nañ ko yàlla soril mbokk jullit yi islaam dafa mat borom bidaa dafa tuumaal yonent bi ndax yàlla dafa wax ci yoon alquran yonent bi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islaama diinan yonent bi dafa taxaw ci arafat ci aj gi mujjee aj ci naaj bu tàng ba naaj baa ngi tàng ba sahaaba yi dañoo yërëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn ci sahaaba yi moo indi kaalaam ñu tàllal kaala gi mu nekk ñeenti koñ koñ bu nekk benn sahaaba téye ko ñu tiim yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax naaj bi bañ a tàppe ci kawam ndax naaj bi daa tàng ndax naaj bi dafa tàng ci kawam ba muy ñaq-ñaq bi di siit foofu la ko yàlla fekk wàcce ci moom al yawma akmaltu lakum diinakum tey diine ji mat na lu mat lu mat lu mat buñ ci yokkee nu muy def day tuuru buñ ko wàññee du baax suñ ko yokkee du baax dafa mat noonu lañ koy bàyyi waaye lislaam yonent bi ne mat na yàlla ne mat na yàlla ne gërëm naa tey lislaam mu nekk seen diine yàlla ne ku indi leneen yowmal qiyaam duma ko nangu wa man yabtagi gayra al islaama diinan fa lan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin loolu yàlla ko wax képp ku indi leneen lu dul lislaam yàlla neen duma ko nangu te ëllëg àllaaxira da ngay perte kon naka la yàlla di waxee lii ñun waa Sénégal wala ñu nangu ñun jullit ñi ñu lànk ne diine bi matut diine bi am na leneen lu ci war a bokk mbir mii ci la bokk lee ca la bokk lii ci la bokk kon yonent bi da koo fàtte woon xanaa kon tuumaal nañ yonent bi ndax yàlla nee na mat na yonent bi nee na mat na keroog bi aaya bi wàccee yonent ba tàllal loxoom daan na yàlla ndax matal naa sahaaba yi ne naam mu ne allahumma fashad yàlla seedeel yow yàlla li nga ma yónni woon mat na ala hal ballagtu la wax ndax jotal naa ala hal ballagtu sahaaba yi ne ko naam ya rasulallah mu ne allahumma fashad yàlla kon man matal naa li nga ma yónni woon tey ji moom yonent bi bu romboon fii mu fekk ñi fii ñu yor suñuy tabala di tëgg di fecc di ko booleeg laa ilaha illallah di fecc di fettasu yeneen bi naan waaw ma haza nga gis kenn génn ci mbooloo mi naan ko na haza xawmu wala haza zik loolu bidaa la bokk ci ndax yonent bi xamu ko moo tax ñu war ko moytandiku ixwata al iman wa mimma yanbaghi at tanbihu alayhi anna al bidaa tumitu sunna fi muqabiliha lu war a leeral lu ñu war a xam mooy bidaa day rey sunna saa yi ñu dundalee bidaa rey nañ ci sunna lu toll noonu loo xam ne dootul dekki te tey mën ngaa wax mbir yu bëree bëri moo tax sunna dee xoolal rek yonent bi dafa ne bu ñu sëlmalee ci julli ki ne asalaamu aleykum wa rahmatullah ndeyjoor asalaamu aleykum wa rahmatullah càmmoñ na wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam wa tabarakta ya zal jalali wal kiram allahuma ainni ala dikrika wa sukrika wa husni ibadatik ba ba askar yi jeex du loolu la yonent jàngale ba zikri yi jeex dañ naan asalaamaaleykum nga gis kuy deseene kuy deseene sijaada yi naan nii di di deseene di deseene de gauche à droite di wër ay rooron waaw loolu rey na sunna bi soo ko waxee waaw salaamaaleykum mu ne la non lii mun sama benn paa bu baax moo ma ko jox sa paa bu baax boobu ak yonent bi ku gën a baax yéen ñëpp a ngi ni mun ngeen maa seedeel ne jàkka yu bëri ngeen di jula da ngeen di gis kuy dessiné kuy dessiné ci siyaada yi pare di fóon yenn saa yi nga gis ku ne nii gis naa benn paa ci jàkk fajar ñu julli ba pare mu def ko ma génn xaar ko lu sori distance ba ma gis ko mu ngi may xaw a jege ma jege ko salaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ma ne ko cheikh bi dama gis sànq ci jàkka ji bi ñu jullee ba pare nga am ay ñaan yooyu def ñaan yooyu doo ma ko baaxee mu ne ma ban la ci ma ne ko gis naa nga ne nii nii nii nii nii loo wax mu ne ma ah mu ne ma dama ne inna atayna kal kawsara fasalli li rabbik wanhar inna saani aka huwal abtaru ma ne ko léegi loolu lan la mu ne loolu de sama benn kilifa moo ma ko jox ma ne ko yonent bi bi mu la jox ak kilifa googu bi mu la jox ban nga yaakaar ne moo ëpp barke te mu ne ma sawaay gëmal li nga gëm ma gëm li ma gëm loolu la ma wax gëmal li nga gëm ma gëm li ma gëm gis nga li ma leen doon wax sànq ci bidaa du ñu nangu wallahi wallahi soo fekkee kuy def bidaa soo waxee du la nangul c'est parce que dafa gëm ne lii mooy dëgg du la musa nangul xoolal loolu dem ba ñu bàyyi loola lu yonent bi indi lan la yàlla wax wa ma ataakumu rasul wa ma ataakumu rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu yonent bi ne yàlla yo yàlla ne lu yonent bi indi jël leen lu tax ndax maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ndax moom du wax lu ko neex lu mu wax yàlla moo ko wax mu indi jox la nga lànk ne doo ko jël c'est parce que pas baay sàmba baay moodu baay demba baay ngañ baay yero am na lu mu wax loolu ngay def ixwatal iman li ñu bàyyi ci sunna kenn xamul nu mu toll li ñu rey ci sunna kenn xamul nu mu toll ci ay bidaa yoo xam ne ma anzala allahu biha min sultaan wali kay natajannab al wuquu fi l bidaa pour ñu sori bidaa pour ñu xam ne bidaa musiba la pour ñu sori ko foog ñu jël tomb yi teg ko sunu kanam ba ca jiitu mooy an yutaqarraba ila allah bima sharaa fokk ñuy jaamu yàlla ca yàlla la mu rëdd ne lii la waaye bu ñuy bàyyee li yàlla rëdd ci alquraanam ak sunna rek dañuy dugg ci bidaa tey bokk na ci li tax bidaa tasaaroo mooy di jaamoo yàlla ay mbir yoo xam ne lam yusra yàlla santaanewu ko ci ay hadis yu wérut yoo xam ne fen la dañoo fenal yonent bi càlla lay dara baaxu ci loolu tax na tey ñuy jël ay bidaa di ko dugal ci diine bànneexu bakkan bànneex bànneexu bakkan nga gis ku topp bànneexam rek saxal bidaa waaw lii lii ci la bokk waaw fal force dañ koy def ndax bànneexu bakkanam keneen ki gis-gisam lii foog ñu def ko keneen ki mbooloo mi mu bokk ñooy def bidaa il faut mu def ko te yëpp dafa wuuteeg yonent dafa wuuteeg dundu salafu saalax ixwatal iman ñaareel bi mooy fokk ñu moytandiku yenn pas-pas yi xoola ki gëm ne moom mën na dem léegi-léegi aljanna ñëwaat wala mu dem safara léegi ñëwaat ki gëm ne man démb gis naa diw fii la toog yàq zatan léegi la fi jóge nelawuma de léegi laa doon wax ak moom te kooku dee na depuis septième siècle nga gëm ne léegi la fi jógee nga gëm ne néew yi dañuy jógee ci armeel yi ñëw naan kafe delluwaat yéen yaakaar ngeen ne waa joo xam ne dafa amoon visa sax visa dem États-Unis visa mu mu mu nekk fa liggéey fa suñ ko bëggee delloo si fii Sénégal lu muy def mu am fa jabar am fa ay doom am fa teraanga am fa immeuble am fa lépp ñu ne ko dañ lay delloo Sénégal waa jooju nu muy def wallahi yenn saa yi dina ko jaral mu xaru yaakaar ngeen ne nit dina jóge adduna bii dem aljanna di ñëwaat fii yaakaar ngeen loolu ndax kafe kafe xanaa kafe a aljanna amul kafe yàlla mu ne fiiha maa la aynun ra'at wala uznun sami'at wala xatara bi qalbi basar yàlla mu ne wa ida raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira allahu akbar waaye nit dina dem aljanna dee dem alaxira dem aljanna nga dégg Sénégal ñi ngi defar café rek nga daw ñëw na dina da ngay naan café tamit dañ seetaat wax bi dafa am caaxaan yoo xam ne buñ ci duggee dañuy sànq mbooloo jullit yi dañuy sànq jullit yi te tey loolu moo am jullit yi dañoo réer a réer a réer ba kenn xamul fooy taxaw lu ko waral mooy bàyyi alquran bàyyi sunna ndax yenn pas-pas yu bon yi pas-pas yu ñaaw yi xoola waa ji ne man démb damaa demoon safara fukki nit ak juróom laa waroon libéré mais ba ma demee sax jël naa fa trente personnes nga dégg keneen ki ne man diw bi mu faatoo man maa ko teeru aljanna damaa jël siège bi teg mu ñëw toog ma dugg ci biir kër yi naan kaay leen diw ñëw na mu ne ko yow mi mu ne ko man mii dem àjjana ñëwaat toog fii di lekk mbaxal ak dëxil halaza maaqul ayuha al ahbab ndax loolu xel nangu na ko fii nit dem France rek du bëgg a ñëwaat Sénégal nationalité nit dem États-Unis nationalité nit dina dem àllaaxira dugg àjjana di ñëwaat fii xanaa jàngu leen his- histoire yonentu ba yonent bi duggoon aljanna jàngu leen xisaam kan la ban yonent moo duggoon aljanna malaaka bi ne ko génnal mu lànk Idris dugg biir aljanna simmi ay daalam ci buntu bi dugg nekk fa ba heure bi jot malaaka bi ne ko heure bi jot na de mu ne ko pour lan mu ne ko dama ne woon nañ la may nga visité mu ne waaw mu ne ñëwal dañ la mayoon une heure de temps jeex na mu ne ko hee xanaa da ngeen waxoon ne du yàlla moo ne ku dugg doo génnaat allahu akbar ah yàlla toog di seetaan de xoolal yàlla la neex mu toog di seetaan diggante malaaka beeg Idris allahu akbar parce que moom tëral na plan bu yàgg xam na ne bu duggee du génnaat mu ñëw ba ci bunt bi bëgg a naax malaaka bi ne ko xaaram teg nii samay dàll insha allah rek xam nga ko teg ay dàllam ci bunt bi moom looy xalaat day del siwaat ndek moom loo ko da koo nax malaaka bi tamit comme yàlla moo ko namm qadrullah mu dugg def fa lu ko neex mu ne ko kaay mu ne ko yee yàlla moo waxoon fii ku dugg du génn mu ne ko yàlla dane woon ku dee ba pare mu ne ko ah da ngaa fàtte ñamaloon nga ma dee balaa may ñëw fii da ngaa fàtte lu mu wax malaak Idris indi dalil yàlla toog ba caag ne malaaka bi bàyyi ko kii moo ma soob muy dugg aljanna nii lay duggee bàyyi ko kon kay jeex na waxuma laa ne nga ñëwaat Sénégal xanaa demoo France demoo Amérique demoo Italie nga ñëwaat fii fii fii loo fi loo fi fekkaat boo fi ñëwaatee fii ba fekk fi nit ñi ni ñu sonnee kon di nga xam ne fii warootoo fee dellu si dafa am suñu benn dëkkandoo bu nekkoon États-Unis nguur gi kompaloo ko bañ koy indiwaat moo ngi fii di ma dégg xutba bi mu ngi may dégg bi muy ñëw ndeysaan benn waaye def audio ne ko diw yaa ngi dem dëkk bu metti diw gaa yaa ngi lay delloo dëkk bu metti wallahi bi mu ñëwee mettit googu la fekk yal leen yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal leen yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nabudu gayra muxlisina lahu din walaw kariha alkafirun ibadallah bidaa suñ ko toppee daf ñuy indil pas-pas yu wuute pas-pas yu kenn xamul fuñ ko jëlee ñu bàyyi alquran ak sunna waaye buñ ko toppee dafay dem ba nuróole ñu ak yéeféer yi ñuy nuru loolu ak ñoom te yonent bi tere woon nañu ko ñetteel mooy bidaa li gën a bon li muy def mooy tasaare mbooloo lislaam dootuñu bokk dara dootuñu nuróole dara dañuy dem sax ba tey ji ci leeral loolu baatu laa ilaha illa allah ñun fi bokkutuñu nuñ koy nuró nuñ koy waxee ku mu neex boo génnee duggal ci son yi kër gu nekk déglul seen façon laa ilaha illa allah nuñ koy waxee ku nekk da ngay jéem a xëcc dañuy dem sax ba ci mbax ne yi mbax ne yi mbax ne mbax ne ñoom diw mbax ne ñoom diw yére ñoom diw caaya ñoom diw ñoom diw nii la ñuy soloo ndax kilifa gi noonu lay soloo fu ñu jëm ku nekk au lieu ñu roy yonent bi ndax moom lañu yàlla xooloo woon laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ñu bàyyi yonent bi léegi di roy ñeneen ixwatal iman bidaa baaxul te tey bidaa bëri na trop ci biir jaamu yàlla yi yal na yàlla sëriñ yërëm al imam Hadi Touré dafa doon wax ne bidaa yi tolloo naag xobu ngeer yi xobu ngeer bu ngeen demee ci àll bi am na fa benn garab bu tudd ngeer moom da doon wax ne bidaa yi ak xobu ngeer yi tolloo na waaye tey bu dekkiwaatoon fekk bidaa bi ëpp na xobu ngeer yi lu tax ndax xeet wu nekk am nga léegi seen bidaa mbooloo mu nekk am nga bidaa lu nekk am nga am nga loo dugal am nga loo dugal am nga loo dugal ku nekk rek am nga loo dugal lu tax ndax say bànneexi bakkan ndax sa intérêt ndax lii moo lay indil koom ndax lii moo lay may mbooloo ndax lii mooy tax ñu topp la ndax lii mooy tax ñu dégg la ndax lii mooy tax ñu ragal la nga dem indi ci diine yàlla ji lu ci bokkul ba pare dugal ci jullit yi tere leen alquran ak sunna xoolal tey alquran ak sunna ni ko nit ñi noonoowee waaye yow di nga dem place sàngam nga ne ko déedéet man ne duma fa dem lu tax ah gisuma ko ci al rek yéen ñu bon ngeen yéen safara ngeen jëm ndax da ngeen a bañ diw xoolal loolu lañ lay wax carrément waaye yow di nga def nangam déedéet démb ci mujj benn ngénte bu ñu demoon xoolal ngénte ngénte léegi balaa nit ngénte foog mu ne nam na njàngal alxuraan ba pare dafa ne loolu ndeysaan lu baax la waaw man 10 heures laay tudd ah damaa bëgg 8 heures gaa yi ñëw wàcceel ma kaamil bi ba pare ma doog a tudd loolu fan lañ ko bind ci alquran ak sunna laaj naa ko képp ku julli si juma fan lañ wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu daan tudd dañuy wàcce kaamil ba pare alquran bi ci kan la wàccoon ci moom ci moom alquran bi 114 saar yëpp ci moom la wàcc ndax mës ngeen gis muy tudd ne nañ jàng kaamil bi ba pare mu tudd moo tax gis nga affaire bi xool nu mu rafetee pourtant dafa rafet. yàlla may la doom nga ni xaaral ma dem jël alquran jàng ba pare imaam bi ñëw tudd alhamdulilah xoolal nu mu rafetee ci sa xel mais du diine moo tax diine du xel diine ay texte la du xel lu la koy wan mooy yàlla moo woo Moussa ba tuuri Sina ne ko Moussa wa ma tilka bi yaminika lu la loo yore mu ne sama yat mu ne ko sànni ko alqiya mu sànni ko fa iza hiya suban mu nekk jaan mu nekk yeew mu ne ko téye ko ndax xel nangu na ngay téye jaan ak sa loxo foofu moo tax borom xam-xam yi ñu ne Moussa texte la utiliser utiliser wul xelam mu ne ko zaj mu téye yàlla mu ne ko sanuidu sanuiduha sirataha al ula dinaa ko delloowaat mu nekk yat parce que texte la utiliser utiliser wul xel bu doon xel du jàppaat jaan ji ndax xel nanguwul ngay téye jaan ak sa loxo xam ngeen xel nanguwul lool diine du ay xel du xel lu mu rafetlu rek ñu ne ko paccax ci biir diine ji mbokk jullit yi bidaa yooyu tey nga xam ne tasaaroo na biir ak biti jëkkër ak jabar ci biir kër bokkuñu ay bidaa jabar ji daa am bidaa yi boppam ku góor ki am bidaa boppam doom yi am seeni bidaa bopp di nga gis kër goo xam ne ku nekk dafa am foo bokk suñu benn jigéen ndeysaan moom lu am day dem lu am day dem benn bis jëkkër ji ne ko kaay diw mu ne toogal damaa bëgg nga wax ma fan nga bokk boo dee ma woo ñooñu parce que yow lu am nga dem xamaguma ba léegi lan nga c'est tout court mu ne ko man jullit laa mais tey soo nee si benn sénégalais lan nga mu ne la man jullit laa au lieu question bi jeex danaa ko fan nga bokk ndax loolu yàlla moo nu ko tuddee yàlla benn baat dong la wax muslim wala tamutunna illa wa antum huwa samaakum jeex na benn baat la ñu yàlla tudde muy jullit moo tax boo waxee nit ki lan nga mu ne la jullit jeex na gis naa benn vidéo benn waay di tuub tuub ba pare ñu ne ko waxal ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah ba pare ñu ne ko léegi nag yaa ngi doo ko nekk jullit léegi nag lan nga diggante jullit ak nangam lan nga ci bëgg a nekk waxal su fekkee jullit nga bëgg a nekk jógal nga dem sa yoon jógal jógal nga dem mu ne waxe man kay kii laa bëgg a nekk mu ne waxe toogal waaw fan lañ jàngee ne jullit bu tuubee ba pare dañ koy wax nangam sàmm nga bëgg a nekk wala demb nga bëgg a nekk waa kër Moodu wala waa kër Demba fan lañ jànge lool tee ñoo delloo si suñu xel tee ñoo xam ne lislaam mooy lépp lu dul lislaam yàlla du ko nangu mbokk jullit yi am na suñu benn mbokk suñu benn doomu ndey boo xam ne fii ci jàkka ji la doon jullis ak ñun bi mu mujjee feebar xam ngeen ne dafa yoroon loxo bu métti loxo bu lakk ci gaz da ko daan laxas sax ndeysaan maa ngi fàttaliku daana ñëw fii ñuy raxas jàkka ji mu téye beneen loxo bu gaañuwul bi la doon liggéeyee mbokk boobu mu ngi tudd Alpha Amadou Bari dafa génn àdduna ngeen ñaanal ko yal na ko yàlla yërëm mettitu loxo boobu moo ko bàyyiwul ba mu génn àdduna ngeen ñaanal ko yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla tàbbal aljanna ci mbooloo mi la bokkoon daana fi ñëw tout le temps même bu ñu woote woon sax day ñëw même li mu feebar sax ñëw na fi laxas loxo bi ne ma defal ma ñaan sama loxo bi daf ma sonal parce que loxo bi moo bañ a wér xëy na foofu la yàlla naroon jaaral sabab mu daal di génn àdduna métit yooyu mu doon métit lu ci àdduna yàlla na ko yàlla tabaraka wa taala yemaleel ci àdduna lépp lu mu naroon sonn àllaaxira yàlla na ko yàlla yemaleel ci méttitu loxo boobu beneen ba ca tegu mooy am nañ ay mbokk ay doomu ndey yu nekk ci ay tolof tolof ay jafe-jafe ay jullit ñoo ngi ci biir mbooloo mi di sàkk mbooloo mi dimbali leen suñu paree julli incha allah ci kàttanu borom bi lépp lu leen waaye mën a dimbalee fàtte ko ngir yàlla incha allah nga joxal ñu ko borom zile yi zoom yi allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله